sant leen gërëb leen ci ni ngeen baaxoo di bàyyi xel seen plateforme di ko suivre ci net bi ànd ak Mass Dakar live Salim suñu xarit ak ñeneen ci seen i naataango ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Pagaye Mbaye Dogo ñu nekk ci wàccaayu événement boobu muy préparé pour le 16 novembre au théâtre national Daniel Sorano nekk date boo xamante ni c'est une date très ci li nga xamante ni moom moo di carrière Pagaye Mbaye ci salle bu mythique muy Sorano mu ñëw fi nga xamante ni moom moo di euh, suba teel musique fekk si ki nga xamante ni moom moo di magam xaritam euh, di grand frère am ki nga xamante ne moom moo di Matar Diop suba teel ñu seq ak moom waxtaan waxtaan moom ci lu baree baree bari ci événement bi mu def ci itam li nga xamante ni moom moo di waree fam ñu taxaw ak ki nga xamante ni moom moo yor cellule de communication bu Subatel musique di grand Assane Lo quelqu'un qui n'est plus à présenter Pagaye Mbaye ngi taxaw grand Assane mi ngi taxaw dañu bàyyi Pagaye mu nuyoo nit euh, ñu seetaan euh, bu ko defee ñu dem directement ci grand Assane ñëwal nii grand ñëwal nii waaw ok ok ay kon ñu ñu ñu ñu jox suñu grand Assane Lo mi euh, cellule de communication wala ñu njëkkee ci pagaay bu la ci gënal maas nañu bàyyi pagaay mu nuyoo ah comme moo ñëw këram fekk si ay magam ak i xaritam pagaay na nuyoo bu ñu noppee ñu soog a waxtaan ak grand Assane Lo aca pagaay waaw Mara jërëjëf maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan maa ngi am mbégte tey ci fii ñu nekk ndax ci sunu kër lañu nekk donc tey ñu ñëw seet si kenn koo xam ne kenn la ci man muy Matar Diop suba teel di suma kilifa di nit ku baax koo xam ne am nañu jaar-jaar bu yàgg boobu lii lépp dara xewul waaye moom it fàttewul dara tey jii nii donc euh, bu àdduna doxee nag yàlla boole ñu ñu bokk ëtt bi ñu nekk muy milieu musical bi suñu borom dogal mu nekk ci kilifa liggéey ci musique bi loo xam ne tey jii nii kenn mënu ko dindi ndax def na ci loo xam ne liggéeyu téeméeri personne la def macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm fi mu bëgg a yóbbu euh, carrière artiste yi laay wax ndax artiste bu fi nekk rek am na fu Matar jaar ak yow donc yàlla na ko yàlla may mu mottali loolu. Euh, tey nag dañu jub nekk ci benn événement boo xam ne événement bu mag la bu may def muy le 16 novembre fee ca Sorano donc muy événement boo xam ne dama ko jël di ko ci sargal sargal bi lan moo ko waral. Euh, dara taxul may sargal Matar ndax nit ku nekk dafay am looy dund ak moom ndax kenn du namm koo xamul te Matar dafa am fu ñu jaar man ak moom mu yàgg jàpp ci bis yi yàgg ma taxaw euh, ci lépp nag jël ma boole ma ci boppam xamal ma ne mu fii ci suma kër la lépp lu ma fi wax loolu day am donc bañ na ko ba nee na ma sax booy def doo tàggoo kon tey nag bu ñu demee ba yàlla dogal ma tuddee ko bis bi ñu ñëw fii sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko mais moom nit la boo xam ne ku nekk xam na ko ci wàllu image dafa nekk nit boo xam ne ci image lu raar nga koy gis donc kon bu per Assane loo taxawee mel na ni Matar moo taxaw ñu ñëwoon indil ko kartam pour préparer le 16 novembre waaye mel na ni Mara yëf yi neex na ndax nag bi ñu toogee waxtaan ak moom lan ngeen bëgg lañu wax ñu xamal ko fi ñu toll ak li ñu bëgg mu wàcce ñu ci lu bare bare bare bare bare kon nag mataar du ñu def lu dul am contentement di ñaan yàlla may ñu ñu àgg ci bis ba ak jàmm bay Père Assane daal di mu jël ci ay kàddu. waaw ma leen di nuyu di leen uh, tatagal di leen jaajëfal di leen wax ne leen welcome bienvenue pagaay ñëw nga fi nga war a ñëw fii kenn du la ko nettali xam nga ruq ñu fay làmp yi xam nga ko ñu taal làmp yi xam nga ko kon yow sa bés sunu bés la li nga def nag olof dane bu ñu la wanee nag bi na la sa sa wàll ngi nii bu la suurul ci ba muy dund kon bu dee du la suur te danga ko def wane ne Matar sa mag la sa kilifa la parce que aussi doon xale taxut am kilifa doon magi taxut am kilifa ndax Matar jar na lu ne kon boo ko sagalee rek wàcc nga ndax nag looloo fi ne nit kenn du ko lekk dañ koy jariñ te wan nga ne mataar ne leen sama kilifa nga sama lépp nga nga jël bés bu toll noonu ndax sargal nag yombatul ci réew mi mais danga koo def pour rien du tout ndax jëmmam ci boppam ak lim la defal kon tu es reconnaissant te nag pour wax waxu ji nga xam man dama représenté suba teel yow xam nga man xam naa saay xam na ñii seetaan sax xam nañu pagaay biir suba teel kon sotti ceeg def ci la pagaay di la wax ne la sa bés bii ngay digmal du sa bés moomatoo ko na ci ñëpp génn loolu suba teel ko moom. noonu la ko Matar waaw te mooy yëfu suba teel ndax nag ataaya ji neex na rek nga ne oom laa ko fuuralee moom ñun duñu genre boobu ñun da lay wax li fi ne te Matar li mu la wax noonu la toll te noonu lay jëfee kon ñun buñ ci waxee dañuy wax rek waaye Matar def na lépp kon di la jaajëfal di wax sénégalais yi ne leen. ñun ñoo xewle Subatel ndax nag Subatel nag bu xewlee Sénégal a xewle te bu Sénégal xewle Afrique moo xewle te bu Afrique xewle diaspora bee xewle ndax ki di Subatel di lu monde entier kon gars yi ñu ngi leen di xaar yéen kenn ku ci nekk loo mën loo mënul na ko def ci bés ba sorewul nag si pour bientôt léegi lañ koy pare bu ma sañoon mhm. képp koo xam ne si danga war a ñawlu wala nga war a sol lu bees mhm. dawal suba suba nga dem lijjanti ko ndax bés bi gaaw na gaaw boo xam ne te ñun duñ leen may dara xam leen loolu nag. pagaay yow ñun ngay jéem a song yow tey rek nga problème yow. mais mais bi laa bëggoon wax. ah ñu bàyyi ci xel incha allah le 16 novembre bis la boo xam ne bisu ndaanaan la ki ñuy sargal moo toll ni ne mel comme ni nga ko waxee Matar donc liggéey na lu ko ñëpp xamee ci àdduna bi te boolewul ak wax donc nag ñi ngi jox ñëpp rendez-vous di leen wax ne incha allah Sorano dinañ ko ubbi à partir de 17 heures. dix-huit heures dix-neuf heures waaw semi nocturne la bëgg na ñëpp teel a génn si bu ko defee zéro heure foofu dafay arrêté waaw nu pagaay di dugg see ak début pagaay mm. bis bu la dix-huit heures vingt fekkee ci bunt bi doo gis dara zéro heure nag lay jeex gars yi dañu respecté loolu te xam ni man bu doon may yéen mm. non fa lay añee fa lay añee kon rendez-vous gars yi le 16 sañse def ba mu baax ndax nag kiñ tuddee bés bi sañsekat la ñi ànd ak moom it sàncakat la kon gars yi bu leen ko kenn nettali te bu leen kenn mën ci loolu on vous donne rendez-vous incha allah le 16 merci beaucoup jërëjëf man ci ñëpp génn hmm? loolu suba teel ko moom noonu la ko Matar waaw te mooy yëfu suba teel ndax nag ataaya ji neex na rek nga ne oom laa ko fuuralee moom ñun duñu genre boobu ñun da leex li fi ne hmm. te Matar li mu la wax hmm. noonu la toll te noonu lay jëfee kon ñun buñ ci waxee dañuy wax rek waaye Matar def na lépp kon di la jaajëfal di wax sénégalais yi ne leen ñun ñoo xewle suba teel mm-hmm. nag suba teel nag bu xewlee Sénégal xewle mm-hmm. te bu Sénégal xewle Afrique moo xewle te bu Afrique xewlee diaspora bee xewle mm-hmm. ndax ki di suba teel di lu monde entier kon gars yi ñu ngi leen di xaar yéen kenn ku ci nekk loo mën loo mënul na ko def ci bés ba soriwul nag si pour bientôt léegi lañ koy pare bu ma sañoon képp koo xam ne si da nga war a ñawlu wala nga war a sol lu bees dawal suba suba nga dem lijjanti ko ndax bés bi gaaw na gaaw boo xam ne te ñun duñ leen may dara xam leen loolu nag pagaay yow ñun ngay jéem a song yow tey rek mais mais heure bi laa bëggoon wax. ah ñu bàyyi ci xel incha allah le 16 novembre bis la boo xam ne bisu ndaanaan la ki ñuy sargal moo toll ni ne mel comme ni nga ko waxee Matar donc liggéey na lu ko ñëpp xamee ci àdduna bi te boolewul ak wax donc nag ñi ngi jox ñëpp rendez-vous di leen wax ne incha allah Sorano dinañ ko ubbi à partir de 17 heures. dix-huit heures dix-neuf heures waaw semi nocturne la bëgg na ñëpp teel a génn si bu ko defee zéro heure foofu dafay arrêté kon ku bëgg fekkee waaw nu pagaay di dugg see ak début pagaay bis bu la dix-huit heures vingt fekkee ci bunt bi doo gis dara zéro heure nag lay jeex gars yi dañu respecté loolu te xam ni man bu doon may yéen non fa lay añee fa lay añee kon rendez-vous gars yi la 16 sañse def ba mu baax ndax nag ki ñu tuddee bés bi sañsekat la ñi ànd ak moom it sañsakat la kon gars yi bu leen ko kenn nettali te bu leen kenn mën ci loolu on vous donne rendez-vous incha allah le 16 merci beaucoup jërëjëf